xam nga li xew fii tey bettul kenn ñun ñëpp xamoon nañ ne dinañ ko renvoyer parce que ñii wax dëgg yàlla réew mi yëpp xam nañu ne ñii dañ leen tooñ dañ leen tuumaal tuuma yoo xam ne teguwul fenn comme nag amuñu lu ñu wax nit ñi amuñu lu ñu jox nit ñi nañ nañ xool rek di di renvoyer rek di renvoyer ba keroog ñuy ràbb seen i mbir yuñ teg ci loxo nit ñi waaye lii munuñ fa munoon nañ fa bañ a yegg munoon nañ fa bañ a yegg yéen ñëpp gis ngeen Sidi Lamine ñas nee na taxaw ci télé ñëpp di ko dégg mu ne wax na président de la république ne ko Aliou Ndao lu mu def mu ne ko Aliou Ndao deful dara raisul jumhuriya président de la république moo wax loolu Sidi Lamine Sénégal yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy dégg ak même bu ko waxul woon loolu ñun xam nañ ne deful dara parce que affaire térorisme ay tappale la ay sos la ay gàllankoor la moo yoo xam ne seytaane moo ko créé di ko sànni jullit ñi pour gàllankoor leen ci l'islam kon amul benn jullit ci àddina bu ñuy wax ne ko sa mbokkum jullit terroriste la nga koy gëm xana jullit bu yeewuwul wala jullit bu naïf loolu nag ñun suñu xel dafay dal toujours dinaa ko wax waxati ko lii du lu bees l'histoire se répète Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul keroog bi nu koy jël di ko yóbbu yóbbu nañ ko presque juróom-ñetti at tuumaal ko ne jihadiste la woon da doon dajale ay armu wax ko lu nekk mu ne leen man du ma du ma jëfandikoowu ma armu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa man damay jihaad mais ci xam-xam ak ragal yàlla imam Alioune Badara ndaw ku dégg ay conférence am di nga dégg mu wax ci loolu ne moom li mu gëm pour changement pour soppi société bi du jëfandikoo doole du jëfandikoo force du jëfandikoo armement mais jàng ak yar loolu la gëm conférence yaa ngi fi ñëpp gis nañ ko ñëpp dégg nañu ko kon lii suñu yeboo gaaw ko jeexel nit ñi dellu ci seen liggéey parce que ndaw ñi xale yu ndaw yi trente personnes ay professeurs ay étudiants seen réew soxla na leen mën nañ jàng pour liggéeyal seen réew imam Alioune Badara Ndao réew mi soxla na ko social soxla na ko xam-xam soxla na ko te réew mi bëri na réer bëri na pauvre lañ bàyyi ñu liggéey li ci seen réew réew mi ñu ngi jooy ay tolof tolof rey nañ kii fetal nañ kële dagg nañ kële nan nañ deretu liir bële yée nañ yàqu liir bële fitna ci kaw fitna lii day yokk fitna lii day yokk fitna bu ñu bàyyiwul tooñ yi sew sewaan yi surtout walli yi ñuy tooñ xamuñu fu ñu jëm képp kuy sénégalais maa ngi lay wax ne boo amee kaddu yëkkatil sa kaddu lii ñu dakkal ko parce que tooñ baaxul mais rawatina tooñ ku néew doole tooñ baaxul waaye rawatina tooñ walliyu te walliyu mooy ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran di ko jàngale di ko dundu di ko dundloo nit ñi kon li ñuy ñaan mooy na xel yu dellu si ñu xool intérêt réew mi te bañ a déglu tubaab yi tubaab yi dañoo toskare ñoom ñooy terroristes yi ñoom ñoo xam lu bon ñooy def lu bon ñooy nas lu bon ñoom ñooy bëgg xaalis bëgg pétrole bëgg suufu jàmbur tax ñu taal guerre ci réewu jàmbur yi yàq nañ Irak yàq Afghanistan yàq libi lépp nga ngir alalu àddina ñoom ñooñu ñoo defar ay armu bu ñu bëggee jaay armu dem taal ay guerre pour mën a jaay armu yi kuy seet terroriste ñooñu ñooy terroriste yi ñooñu ñooy terroriste yow terroriste boo xam ne mosoo jam nit paak loolu fan la am ci àddina ñii mosuñoo xosi nit jamuñu nit rabbu mosuñu dawal oto sax ba fiir nga ñu naan ay terroriste reykatu nit ñi criminels yi ñu xam leen guddi xam leen bëccëg jaaykati drogue yi boo def Casamance bërki dem bu ñu rey ay nit franc-maçon yi reykatu nit yi naankatu deret yi ñëpp ñu bàyyi leen fi jàpp ay nit ñoo xam ne ñu set lañu nañu ragal yàlla lii day gàllankoor réew lii day gàllankoor réew dina ñaaw lool tilim lool ëllëg ñu jàng ci sunu histoire réew yal na yàlla xettali leen li may wax toujours ñun yaakaaruñu nit yaakaaruñu mbindeef lii devoir la rek bu ñuy def mais yàlla moom xam na te moom moo mën a atte président Macky Sall ak ñi ànd ak moom ak waa France ak procureur bi ak avocat